campagne ak askan wi ngir xeex jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus door nañ ko ci Touba ci alxamis ji dëppook le 25 février 2021 ci teewaayuk sous-préfet bu Ndaam ak kilifa yu bari muy chef de service yi rawatina ñi nga xam ne ñoo yor wàllum paj ci dëkk bi ñoom nag ñoo jiitu ci ñàkk gi. te comme ni ngeen ko gisee muy man muy maire Touba ab Ka muy commissaire spécial Bassirou Sarr muy directeur hôpitaux yi Ndamatou ak euh, euh, Matlaboul Fawzeyni médecin chef bi adjoint nu premier adjoint au maire bi ñëpp ak personnel médical bi ñëpp vacciné wu bi ñuy vacciné wu ba pare ñu ne ñu da ngeen ñu toog ab diir ñu saytu leen toog nañu lu ëpp fukki minute ak juróom boo xamante ni bii gis ngeen nu fi mu toll ni amul dara lu soppeeku si sunu si sunu yaram ñàkk yi bokk na ci li nga xam ne mooy xeex ngir ñu jële fii jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus su weesoo mesure barrière yi nga xam ne moom lañ taxawal. tey jii rek lañ doog am uti boo xamante ne bii am nañ ci yaakaar ne bu ñu si jàppandikoo incha allah lu ñu bëgg dina ko am parce que euh, jàngoro yi fi masa a jaar ñi yëpp te sonal askanu àdduna bi vaccin mooy li nga xamante ne bii moo ko jeexal te yàlla dogal na tey ji am nañu vaccin bi donc nañ ci jublu ñëpp. maire bu Touba di Abdou Lahad Ka bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñu njëkk a ñàkk moom muy xamle ne liggéey bi suñ ko amalee ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba dal di dañ cee am ndigalu xalif général de Mourides. bi may ñëw fii man dama am ndigal ci ñëw fii su ma amatul ndigal du fi ñëw xam nga ñun ay ay exécutants lañ maanaam ay militaire lañ yoo xam ne ordre la ñuy déglu buñ ne ah dara de ñëw na dañuy dem ci xalifa général des Mourides dem ci kilifa yi ne leen nangam di ñëw na. bi may ñëwee rek dama ñëw ne ko war nañ ci nangam mu ne dem leen yal na leen ci yàlla defal ndam yal na ko yàlla barkeelal. kilifa yi nga xam ne ñoo yore wàllum ñàkk gi ak paj gi fii ci Touba tëral nañ ay stratégie ngir ñàkk mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ciblé. stratégie bi ñu jëkk a def mooy jiitu ci benn. ba pare fas yéene ci gox-goxaat yi fu ci nekk ñu woote kilifa yi fa nekk waxtaan ak ñoom euh, wan leen ICP bu ñu demee seen gox dinañ woo euh, seen chef de quartier yi ñoom seen bopp ñàkk ñu gis. Euh, defaat sensibilisation continuer du ñu tàyyi te xam ne fi mu ne nii tey jii man bu ma vacciné woo mën naa musal sama bopp waaye am na ñu ma war ñoo xam ne bu ñu muccul keneen mën nañ yóbbu keneen te ñun suñu objectif mooy wax fa dëgg yàlla génne ko ci àdduna bi donc duñu tàyyi duñu noppaluku dinañ nekk ci paj mi waaye insisté waat tamit ba ñëpp ànd ñàkku ba pare continuer mesure barrière yi ba ba suñu borom di ko génnee ci àdduna personnel de santé que ce soit ñi nekk ci hôpital yi ñi nekk ci de santé yi poste de santé yi te même structure privée yi clinique yi ñoom ñëpp ku ci nekk da nga envoyé sa liste ñu compté ko saytu ko ba mu mët recevoir nañ dose bu leen mët sëkk léegi nag am na beneen bu ñuy xaar ci lañ war a jël euh, ñi am juróom benn fukki juróom benn fukki at euh, bu gox yi ci école yeeg ci daara yi dem fekk nit ñi ñàkk leen incha allah. ñàkk yi door fii ci Touba am ba léegi askan woo xam ne ñoom ñu ngi am xel ñaar ci ñàkk yi lee waaye ñuy njort ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom it dana ñàkku ngir wane exemple ci askan wi ñu mën a jëfee ni mel.